le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le Suivez-nous sur Facebook na Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple et Play Store Sénégal 7 le roi de l'information en temps réel www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube Facebook na Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. salaamaaleykum ba tey rek ñu ñëwaat ci seen émission Jal Jali nga xamante ne nii chaque mardi ak samedi lay am fii ci Sénégal 7 ñu ciy ànd ak suñu tante suñu xarit docteur Dieg gi ak suñu grande bu baax mi Ami Collé Mbaye macha allah ñoo leen di nuyu bu baax a baax di nuyu téléspectateur Sénégal 7 di ñu safoo ñu seetaan ak fépp fooy am nekk ci àdduna bi ku ci nekk fekk nañ la fa nga toog di la jaajëfal bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal def jàmm ci àdduna bi ci barke mu Mouhamad damay daal di bàyyi docteur mu daal di nuyoo ak sama grande sœur <laughs> docteur nuyu naa la. maa ngi lay fay bàjjan. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaara. Mhm. di la jox sa wàccuwaay. tubaar fa kaal la macha allah li man liñ naan xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ki mag <laughs> waaye tarkaal la loxo bi set na wecc. nuyu baax a baax. maa ngi wax ne ne namoon naa la. maa la raw lu bari naa lool sax. dañuy namante <laughs> dañuy namante moo tax. di nuyu Ami Collé Mbaye sama xarit bu yàgg boobu. waaw ngi noonu. ak a yàgg. yàgg loolu. am na lu yàgg dëgg la. petit ba grand. waaw. <laughs> maa ngi lay nuyu. <laughs> di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay. waay <laughs> fay bu baax di nuyu téléspectateur u Sénégal 7 yëpp nag di leen mm-hmm. wax ni yéen na moon naa leen bu baax a baax a baax ñëwaat nañ ci seen émission jaljali war a mën a jàkkaarloo ak yéen toj fi tas fi tasaare fi ba mu ne wesat macha allah delloo mbuum nag ca boy boy ba. waaw ñu bàyyi grande sœur mu nuyoo. <laughs> dafa namoon naa la ma ne ko namoon naa la dañoo gëj a gisee lool. jajjab li ma leen gisee. Hmm. xam ngeen ni kontaan naa. waaw sëf rayul mbaam. dëgg boroomi sëf rayul mbaam. dëgg dëgg. mbaam du ca dee. doomi mbaam du ca dee. jajjab ndaw ak la mu miin saa yu ko gisul jooy. Eh, man maay dëkkar bi mooy awkat bi ay waykat bi. Eh, waxuma loolu de kii. <laughs> sama yaakaar ne dafa da da waykat la bëggoon a doon. non chaque jour fi mu eh, génne. sama rêve la woon waaw waaw waaw réalisé wul. lu tax la. Ah? dinaa la produire. ah dama teg téema la indi beneen jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng woy ma woy ma am nga gànnu lawbe waaw am naa gànnu lawbe ñëwal am naa feru lawbe li xeeñ bu dul goowe gongala eli neex na de. non moom chaque jour mooy cinq ma doon waykat de. chaque jour ak bi ñu indi la moom kay way doon na ko. non chaque jour way bi bees ñu indi. way doon na ko taaje woon na keroog. waaw bu jour bu ñu toogee léegi ci plateau bi. di nga woy sa jàmm. waaw waaw bëgg indi problème waay. woy problème yaa ngi bëgg a tàmbali nag. dugg nga dugg nga lu baax ba ndax xam naa ne chaque jour bu ñu toogee fii. bala ñoo commencé dinaa ne la ayca. ma daal di def affaire yi. waaw yow daal jàppandi kon léegi waaye bi ngay ngay dugg. waaw léegi mooy aw. ay waay rek yaa ngi kat bi. non man man maay yaa ngi aw. waaw man maay tàcc man maa koy tàcc di ko tàcc waaw yow yaay dama am sama benn xarit bu ah. mën a lëmbal Tulaay Baab moom laa def lëmbal kat bi. ah Tulaay ñëwoon. day ñëw ñu lëmbal. Tulaay kaay baax a baax a baax saa su nekk rek di jàkkaarloo ki yéen amis téléspectateurs yi waaye di kontaan aussi di partager ak plateau bi Ramatulaay sama sister d'amour ah waaye kenn du nga xamante ne moom mooy suñu rakk ji nga xam ne nee naa ko xale bu loxom sete mu mën a bokk ak mag ndap mm-hmm. macha allah bàjjen bàjjen du monde ah mhm. di kontaan bu baax a baax a baax ci yéen ñëpp ñu ñuy seetaan di am contentement ak mbégte di wax ni émission bi doorati na macha allah yal nañ ko yàgg a teewe ci barke Seydina Muhammad di nuyu ñëpp nag bàyyuma kenn waaye man dama am habitude di sama waa kër waa Touba ah ndax falaa jokk may nuyu Baye Galas Mbacke doomu sëñ Tàkko mu sëñ Fallou sama sëriñ boobu Mbacke Balla yal na fi yàgg lool te wér ci barke Seydina Muhammad di nuyu ñëpp bàyyuma kenn Xadi Ndooy Ndooy Maali Maram Ndooy sama rakk jooju nga xamante dafa sëcc man rëkk te rëkkuma borom campement ngi xox ah doomu ndayu Aychou maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa kër papa sama waa kër yaay ma kenn waa tëngéej samay nijaay tout le monde sama fans yeeg sama soppeeg ñëpp nuyu naa leen di lu baax a baax a baax ci nuyu ba gudd bi nag waaye xam nga rek li doo fandoo ci nag bi yëpp xajul ci cin li waaye li mënu cee ñàkk faaw mu am dëgg la waaw dëgg la lu mu ta ñàkk la rek faaw mu am. faaw mu am borom ñëw hôpital Sénégal c'est faaw nuyu leen. <laughs> dara ñaawul dara ñaawul. àdduna lépp teraanga la. neex na ah. nañ ko sóob rek ci cin li. waaw <laughs> ay ca kon neex na. <laughs> tàllalal. macha allah nuyoo bi rafet na lool borom Mbour ñu ngi lay nuyu ah borom campement ngi xaw. xadi ndooy macha ko la yaakaar naa ku la bëgg la ndax boobu léegi chaque jour. mi ngi lay nuyu kon yàgg jooju waaw sarak yàlla na seen jàmm yàgg. amiin amiin barke seen Muhammad Aji Fall tamit Mhm. sa xarit bi Aïda Fall maa koy nuyu bu baax a baax. ndeysaan borom Touba waaw moo def nii moo def nii. maa ngi koy nuyu. yu bari lay def ci. ndeysaan macha allah daraan ma rek doxalal. dëgg docteur ma ne ko amoon ah, ma doxalal. dafa am ñu baax waaw am ñu baax macha ah, allah. voilà grande sœur docteur Dieg gi tey rek li ñu fas yéenee waxtaanee dafa am solo lool ndax euh, salte gi dafa bari lool. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo set ci biti sant ci biir. setu ginaar setu ginaar. docteur loolu laa bëgg nga yaatal ci wax ci lu la neex yaa grande sœur. Mm-hmm. Mm-hmm. la ilaha ah, illallah buux nañu ko de. Eh, eh, buux nañu ko de. <laughs> waaw buux nañu ko waaye nañu ko lañ naan woo nga naar ci guxum soow. <laughs> ak ngaa woo naar ci guxum soow danaan capp rek jonkan. maanaam di encaissé. Uh-huh. di jël kañ lay jug <laughs> këll bi jeexul du waaye yow it allah li nga wax dafa am solo. Mm-hmm. catu ganaar ci nga dugg. aka bari. ak a bari bari na jeeg boo xamante ne si bu génnee bu la rombee bàjjan mm-hmm. Mm-hmm. nga ni gongo mm-hmm. doo néega tibb lu tàng teg ci loxoom waaye cey li naan daje wóor wóorul bala ngaa xam sa waay nga dem ba këram boo demee ba biir këram ci ngay xam jeeg boobu nan la mel bés boo demee ba ni jàkk ci ay doomam ci ngay xam jeeg boobu nan la mel xanaa xamoon sa jëkkër rek ñu ko xoolee dinañ xam ba xam set nga wala setoo mhm. ci naka góor mhm. jigéen a koy defar góor buñ la gisee nga correct di sol set sa col chemise set say poche mhm. say kawas léeg-léeg nga sëgg di defar sa oto wala nangam sax sa caleçon fi feeñ <laughs> surtout loolu ñu gis mu set wecc léeg-léeg nga summeeku defet deset vêtement kese ñu gis mu weex tàll uh-huh. dinañ xam ne jeeg ba nga bàyyi ca kër ga jeeg bu set la dafa am yu sew uh-huh. yoo xamante ni si ci la xame xamee jeeg bu set ak bu setul gis nga ab jeeg uh-huh. boo ko ne jàkk mu ree di nga xam ne kii jeeg bu set la jeeg ci weewi tànkam danga nga xam setam jeeg ci ay tëstanam da nga ko ciy xam ci sero sëram da nga ko ciy xam ci ay weewi weewi loxoom danga nga ko ciy xam keru noppam kenn waxaalewu ko waaye dafa am loo xam ne dafa làqu ci cib jeeg ci ngay xam jeeg bu set ak bu set muy mhm. lan mooy soutien-gorge soutien-gorge des fois nga gis ab jeeg soutien-gorge am os lool. t-shirt lay sol tàngaay ba yàlla mu sol t-shirt bu weex. jërëjëf tàngaay bi tàng. Mhm. ñaq li wàcc ci kawam soutien t ba yëbb. t-shirt bi soutien bee ko yëbb. soutien ba daal di yëbb li muy wax dafa nekk parce que majeure partie xale jigéen yëpp. dañu mhm. bëgg soutien bu noir. waaw te duñ ko fóot. du jël duñ jël duñ jël balaa. du jël waaye waaye doo solide yére couleur. xalaatoo non grande sœur parce boo ñaqee wala nga def parfum. Uh-huh. daf ciy yëbb. rarement laa gis ku jël ci ñu dem ba tuubaa bariwul am na nag soutien bu blanc. Eh, am na bariwul man dama bëgg soutien bu blanc. mais am na da nga set da nga set moo tax nga bëgg bu blanc am na. Uh-huh. dama dama sa préférence dafa war a sax nekk soutien bu weex. waaw kay yéeg day bëgg weex. waaw ba ci drap yi ngay lal. Ah, man drap couleur dama ko détesté. Mm-hmm. docteur da koy wax da koy wax man su ma nee tëll sama kër. sama jànk bu lay drap couleur damay crise laali laali laali laali bëgguma ko. ci balaa ngay tëdd. xoolal loolu. waaye ma wax la <laughs> uh-huh. ci film yi rek. Uh-huh. lu ci mel ni série yi. bu ma gisee nga ne dangay tëdd tëdd ci dara couleur sax neexuma ma film la xam nga ne bugguma serviette couleur bugguma xam nga film la léegi lu tax ngeen préféré drap bu blanc barki démb dafa am série bu ma doon seetaan li mhm. ngi daw mhm. waaye dañ ni guddi lañu wax démaquillé wu dindi sa maquillage mhm. ba mu set maquillage guddi dafa am donte série la maquillage guddi maquillage guddi dafa am dara bu guddi dafa am dëgg la donte séri la yëre yi ngay sol guddi dafa am mhm. waaye sol borode bu ne jàgg-jàggaaral poñe tëddee ko takk jaaro yu rëy takk sa kii takk sa montre tëddee ko lal dara bu xonq wala nga dal dara bu kii daan dangaa tëdd te dañ koo tëddee réalité la te dañ koo tëddee sax bëgguma ko mhm. dañ koo nelawee ñoom koo nelawee non même su dee série réalité am na donte la sax bëgguma ko laa réalité loolu dafa am dëggal daal wane li nga xamante ni sii loolu moo am ok dégg nga mhm. ñaareel ba dafa am ñoo xamante ni si moom dara bu weex ak dara bu njaxas lañ yemale. waaw du ñu laal li dama damaa dem ba Touba ànd fa ak euh, daje fa ak benn euh, daam. Mhm. mu dëkk fii ñu ñu daje fa. bi ñu demee ba foofu kooku boo ko gisee. Mhm. jongama gamuk jongama. ëpp na xeesal ba weex tàll mais yére bi mu sol nga gis yii yëpp dafa ñuul. Mhm. mu naan laay. man de xaw ma lu ma taq ne. ñàkk a bomb kii ma ne ko dara takku la. daa bomb daa bombul. laa ah, forox ma ne ko soutien bi la soutien bi la. ma ne ko dara takku la xam nga loo tax. mu naa man ko sa soutien bi moo yëbb. soutien bi ma ne ko waa ma ne ko soutien bu ñuul mun naa man ko da ngeen di jàpp ne du tilim tax heure bu ngeen ko jëlee rek daal di takk ñàq boobu nag ak poussière bi parfum bi ngeen ciy def ak yooyu day forox parfum bi ngeen ciy def mun naa ma ne ko bu fekkee dangaa sol beneen yére soutien bi da ciy yëbb ma ne ko sa soutien bi mooy yëbb ne ko tekket sànni ko wala nga lem ko denc ko jënd beneen soutien fii bu dee indiwoo beneen mun naa mën ko takk ko te ngeen bàyyi soutien yéen yaakaar ngeen ni soutien couleur bu bu kii rek la fóot wala soutien bu weex soutien bu noir dañ koy fóot <laughs> ah, kon xam nga ni kooku boo ko gisee <laughs> mu mu mu mu mu mu set ci biti nii nga gis ko yii kii de moom jongama la nangam ak nangam apprécier ko waaye léegi ku dul fóot soutien. <laughs> xam nga fóot sa caleçon déet déet ku dul force soutien ndax di nga force sa kaw sa jëkkër. xalaatuñ ko. ku dul force soutien ndax di nga toppatoo sa kër bay loqati sa rondal. duñ ko def ay waaw kay surtout loolu. ah xalaatuñ ko moo tax ñu ne surtout loolu set ci euh, mhm. ci biir. dëgg la ana lu ko fi jaar. set ci biti ci biir dafa am lu ci gën a graaw. Mhm. mooy man damay gis ne la plupart majeure partie xale jigéen yi. Mhm. dañuy jël si ay serviette couleur di ko jox seen jëkkër. gis nga serviette. mbir la moo xamante ne ne boo sango ba pare moom mooy njëkk tegu ci sa kaw yaram bi mm-hmm. te lépp lu tegu ci kaw yaramu doomu aadama bi war na mën a am benn hygiène benn cet mm-hmm. mais jéeg gi nañu servet yu weex mm-hmm. <laughs> serviette day weex <laughs> loolu da laa bëgg rawatina sa borom kër serviette day weex drap bi sa borom kër di tëdd da ko war a xool xoolaat ko parce que problème yaram la ak njegenaay njegenaay dañ ko war di xool njegenaay sax dañ koy parfumer te jéeg ju bari dañ jël seen njegenaay rek sànni non njegenaay dafay tilim dafay dër dafay ënn njëgënaay wan njëgënaay xaaj bi yëpp dañuy eh, dër ah am na ci ñoo xamante nii fonk ñu tëdd mhm. bu ñu tëdd pour ñoom dañu war a laal drap bu weex bi dañu war a dindi mbubu njëgënaay yi pour mën ci tëdd mbubu njëgënaay lan lay jariñ boo ci tëdd dëgg mbubu njëgënaay dañ ciy tëdd salte surtout fa ngay teg sa bopp pour mën a nelaw mhm. mais nelaw dafa important ci nit ba nga xamante ne nii bu amuloon benn importance suñu borom du ko sàkk dëgg la kon fa ngay tëdd mhm. ngir war fa am sa benn tranquillité mhm. war nga fa sentir loo xam lu neex lay doon mhm. ramatulaay mii am na ay parfum yu neex yoo xamante ni dañ koy utiliser si njëganaay da koy jaay moom mito ak keneen keneen ak keneen dëgg tëdd dafa war a nekk loo xamante ne ni nit da ko war a préparer sa jëkkër war nga ko génne caleçon bu weex taal buy tëdd dañ ko def génne ko sa bu weex taal buy tëdd waaye tamit am na ci xale yu góor yoo xamante ne nii manque hygiène bi ci ñoom la mais du ci seen jabar waa dëgg la ndax nit tamit warul la gën a mën a bëgg sa bopp parce que am na yenn poko-poko yi xeeñ ci nit yoo xamante ni kooku nit mënu fa eggan ah, yow mi yaat mën a eggal sa bopp mm-hmm. ma rootal la wàq merci beaucoup bu ma la rootalee waaye bu fekkee rootal naa la mm-hmm. te am na ñoo xam ne am nañ complexe pour seen jabar sang leen mm-hmm. waaw lu tax yow doo sang sa bopp dindi say wàq jaan non seen jabar dañ leen sang tamit jabar dina sang mais am na benn am na partie intime yoo xam nit rek moo fa mën a dugal boppam dëgg la dëgg la parce que tey majeure partie xale yu góor yi koo summi caleçon bi yuuxu mhm. waaw dëgg la odeur non odeur li ko indi mooy mhm. parce que tey mënoo sol benn caleçon dox mhm. sa kër première chose bi nga war a njëkk a def mooy summeeku parce que dugg sa douche ko ba pare avant kenn di la ko toppatool nga dugg sa douche sango ba set say partie intime am na ci ay produits yoo xam te noonu la ñu bëggee intime la te noonu la ñu bëggee ko sëgg seen si seen i bagage di di di di di di di di def yëf di ko raay mbaadu mais fi ngay dugg di fa def yëf ak en ah. sensible ah. war nga benn hygiène waaye nga la ñu bëgg ko ci sëgg de koo ci war a sëgg mu am odeur non après sëgg mi mën na am odeur sax kon docteur sànq li mu wax daraa koy pose jugal jugal laa lay mën naa la jugal jugal mhm. dama nga gis koo xam ne <laughs> ah. di ñëwaay docteur li wax sànq grande sœur dafa am solo ne dafay sëgg mais caleçon bi dafay set wicc mais des fois nga gis koo xam ne dafay sëgg caleçon dafay tilim comprendre nga si si rue yi si mbedd yi si fépp seen caleçon yi dafay forox na ma yàlla jéggal xëy eh, xullu ba soo ko jegewee da ngay daw eh, te ñoom na set mhm. te mhm. mhm. parce que hygiène bi ci kaw parfois moom ngay gis mais li ci biir ay wàqaru ay wàq jaaña fa nekk mais dañoo war di wat seen kanam yi wax ma la wat de di utiliser nañ ñëw si docteur du problème mu wat de waaw du problème wat de taxul ñu changé dafa war a am ay bagage si boppam xam nga comme dañuy wax ci cetu ganaar mhm. dañuy dugg ci jeeg mais dañuy dugg ci góor ñi mhm. xam nga ñëw naa fi ne la jee góor dafa war a am ay bagage boppam mhm. wan la góor bagage yi mu war a am crème épilatoire góor daf ko war a am obligatoire waa si da ko war a am nag moom paquet bi ngeen laa bëgg ñu koy jënd di ko teg ci salle de yi nee nañ ko jënd di jënd savon yu neex góor xam nga ne diwul ba aw yaramam mën a lakk ko ci mm-hmm. dëgg la saabu parfum yu neex yi nga xamante ne mm-hmm. si boo yu parfumé yi boo ko sangoo da ngay xeeñ neex bëñ yi waxal ci bëñ yi ah? seen bouche yi tamit am na diw yoo xamante ni si mm-hmm. góor ñi seeni seeni diw gisoo seeni parfum sax mooy dàq waaw seeni parfum fort parce que dafay fort am na diw góor yi dafay neex xëy mhm. neex waa nga la nag góor gu sangu ba set wecc xëj xëj mhm. saw yaram amee tipp tipp mhm. nga génn màppu serviette bu set sa jabar jox la ko donte sax amoo jabar fomp ba set daal di jël ci diw yu neex yooyu laal sa yaram laal ci parti yi nga xamante ni sii nag tarkal la am na def déodorant antitranspirant bi nga xamante ni si boo ko defee même mhm. loo ñàkk ñàkk ñàkk waaw loo ñaq ñàkk ñàkk doo xeeñ la def sa parfum bu neex mais góor jigéen ni muy toppatooy boppam góor noonu la war a toppatooy boppam merci beaucoup mais nag bu fekkente ni si yow danga maa jug daal ne damay seeti benn bàjjan mhm. man góor laa dinaa sañse dinaa sangu daal génn def sama parfum bu neex wala may seeti bàjjan wala may seeti ami collègue mhm. ñëw pour seet si la dinaa xeeñal fi nga xamante ne si bu ma ñëwee pour accolade la sama yii dina xeeñ ginnaaw lay gën a xasaw <laughs> ginnaaw nopp yi <laughs> fekk fa nga war a bomb bomb loo ko day gilli ah kaay ma la benn affaire uh-huh. ma naan nit ku nekk lépp loo def def ko ngir sa bopp d'abord hygiène uh-huh. def ko pour sa bopp bul set ngir kenn dëgg la setal yow pour sa bopp parce que uh-huh. déjà yow war nga sentir que ni man sama yaram bii kat war naa ci sentir benn cet parce que dara gën te bon di dem ci di jub ci ay nit bala nga mën a defaroo da nga dem ci ay nit mm-hmm. Mm-hmm. yow même boo demul ci ay nit boo xëyee sangu def sa laal sa diwu yaram mm-hmm. def sa antitranspirant mooy sa déodorant moo xam lu mu ci doon sa parfum war nga ko mën a def toog pour sa bopp yow t-shirt bu weex dama koy taamu man ci tàngaay bii t bu weex tàll ci xale bu góor ci tàngaay bi tàngaay bii <laughs> dama ciy taamu t-shirt bu weex ci xale bu góor dama koy taamu sax ci jigéen sa yére na gën a weex li ci weex na ëpp surtout tàngaay bi ñu nekk nii actuellement dafa tàng lu génne odoru nit dafa yomb te ku ne am na sa odoru bopp mais kenn ku nekk sa odoru bopp yow yaay fexe ba du génn limon bi dara gënu ko am importance ah, surtout limon bi citron bi bicarbonate mhm. bi pareil mhm. boo fekkee yow am nga yenn yoo xam peut-être odoru naissance la odoru judduwaale la mhm. mais jëlal sa limon bi di ko def ci say partie intime di ko ci frotter bu yàggee odeur day disparaître limon bi ak carbonate fépp lañ koy diw si yaram bi wala fu la ci neex diw ko mbaa du la gaañ sa sexe bi. non non bu dee sexe la du la gaañ. Ah, parce que déjà dafa dafa am pour góor la. góor ak jigéen jigéen ñi gën am na jigéen ñu ënn de. waaw am na jigéen ñoo xamante ne nii. am na jigéen ñoo xam ne eh, parce que duñu dem duñu dem toilette pare jël mouchoir. fomp non dañuy tooyaale. dañuy tooyaale tooyaay boobu bu tombee say karaw bari. day am benn guus bu muy am. Uh-huh. guus boobu xale bu góor war a sëgg war la defal mbëlee. Euh, mbëlee <laughs> ah mbëlee. Ah, du la ma sa mbëlee mbëlee boobu xoola balaa ñu caa yegg sax yow ubbeekul merci am na ñoom dañu ubbi tey yoo xamante ni si bu ñu mhm. toogoon tey ji bu ñu ubbee seen say tànk noonu day gilli kii rek di nga gis benn odeur jóge ci moom ubbi tëj xale yu góor mën nañ ko du ubbi rek tëj te nag cetu ganaar gi bari na de torop ak baawu nilon yi mhm. ku ko ci moytuwul ak baawu nilon yi dafa bari waaw mhm. di nga forox tollu jal tollu laa wax de di nga forox toll te doo mën a set bari na ci xale jigéen yoo xamante ni si lu ne lu ne lu ne nekk nañ ko ci seen bopp. dëgg la lu ne mën nañ koo jënd mais xamuñu naka lañ koy utiliser. dëgg la. bari na góor ñoo xamante ni si dañ naan duma takk xale. bari na góor ñoo xam ne dañ naan duma takk mag. ndax kenn ku ca nekk xëy na am na foo jaar ak xale. dëgg la wala am na foo jaar ak mag. waaye kenn du takk jigéen joo xamante ni si dafa set wecc. nga fekk ko mu set wecc ba setal la yow. Mhm. parce que da xam nga sànq dangaa wax lu am solo. Mhm. gis nga góor mën naa set wecc jigéen ñëw salteel ko. Mhm. waaw na nekk. mën naa salte jigéen ñëw. setal ko effectivement parce que li tax ma gën a bëgg ñu dugg foofu sax jigéen moom mooy defar kër. ndax jigéen moom mooy yor kër. xam nga fi ma njëkkee sànq dama ni la jigéen mën na génn. doo néeg a tibb lu tàng teg ko ci loxoom ndax ni mu toppatoowee boppam mais boo jàllee ba këram ba gis ay doomam ni ñu tilim toog ko wekk gis ay ndabam gis ay vaisselam gis ay euh, ridoom mm-hmm. rido rek nit da nga koy da ngay da ngay xam ni foosatuñu rido yi moom dañuy toog ay un mois duñ fa ñaareel ba sa buntu kër mm-hmm. yow jeeg bi ku fa ñëw rek dina xam ba xam ko set nga wala ko setu surtout loolu boo toogee ci sa biir kër mm-hmm. wala nga ne saraax ci sa biir kër buñ nee xirnet xool gis lañ di yay lang dinañ xam ba xam jeeg bu set nga wala bu set wala bu setul mhm. bu ñu toogee ci sa néeg nag moom waxaale wuñ ko mhm. am na jeeg joo xam ne seeni doom dañuy saw mais dañuy tàyyal am na suñu seen i jëkkër di saw la ah. dégg nga <laughs> grand sœur nga la dégg nga am na ñoo xam seen jëkkër dañuy saw xam nga ñooñ sa seen jëkkër xëy ne bu ñuy saw la tamit feebar la mais jeeg bi nga xam ne dama ne la euh, doomam day saw mu tàyyal du génne matlaam bu doomam rëccalee tey saw. Mhm. du génne matlaam def eau de javel. surtout ma matlaam yu bees yi. def kii. dañ koy bàyyi noonu màpp ko màpp ba mu lii ba pare nga ni ko yëkkat teg ca naaj ba ba mu wow kong wala bu fekkee am nga séchoir. nga jël séchoir da nga koy séché ko boo ko séché day dugg ba si biir. Mhm, tàngaay bi microbe bi ba mu ba ba ba xam nga. Mhm. mu wow kong fekk defoon nga eau ak omo. def ko ci màpp ko màpp. mais séché bi xamuñu ko woon. waaw ñu bëri xamuñu woon sachet bi waaw kay ñoom la ñuy bëgg a weer wala ñu wala ñu fomp tegaat noonu mhm. nga sachoir day tàng jër bu ko defee day dugg ba ci biir moom mooy gën a kii sa naaj bi uh-huh. day wow kon fekk defoon nga eau de ak ak kii ba pare sa omo mais yow nan ngay liwee sa sa doom saw ba pare saw rek nga daal di jël sa mos rek fomp ci darab bi déedéet bu doon da ngay màpp mu neex dañuy fomp rek dem bu doon da ngay mu neex duñ ko fomp dañuy jël benn sër lem lem lem lem lem dugal fi mu saw nii daal di jël sa drap lal. lal ci kaw léegi nee nañ sër boobu moom mooy aspiré. non non su yàggee néeg bi day xasaw. léegi nag dangay ngay dem ba sa matelas yow ci sa jëmmi bopp dem naa ci kër jekk toog ci matelas am jug sama yére bi lépp. xonk ko coy ma def nii. muy saw mu xëy ak saw. ndeysaan. jéeg boo xamante ni si buñ ne laa jéeg la danga naan déedéet du jeeg boobu. waaw dañuy sa seetu ginnaaw waaye lii lan la. wallahi azim eh kaay am na beneen affaire de. Mhm. leneen loo xam ne man sër yoo xam même sër. Mhm. yow tey jii nga dem def tubay wala nga def dara daan kii abal ma sër ma damaa bëgg a julli mu abal la sër pour nga teg ko ci sa kaw nga tàll sër bi. Mhm. mu def nga détage. wallahi azim forox rek ci ab jeeg. mais xam nga nag ban laa ci gën a bañ a. nga lemaat toilette daal di joxe. waa surtout toilette parce que ces anglais yi nii. bien vrai que ñun Sénégal lañ nekk. mënuñu ko utiliser teg def carte. Mhm. parce que bu fekkee à l'extérieur carte lañuy def. Mhm. Mhm. ñun amuñu am amuñu ko. bien vrai que am na ci yenn surface yi. mais amuñu habitude boobu. mais ces anglais anglaise. boo xoolee kër yëpp léegi moo fa nekk. am na ñu ko bëggul nag. waaw am na ñu ko bëggul mais majeur mais mais parti yenn parti kër yëpp ces anglaises dafa nekk. ces mm-hmm. anglaises kenn ku ci nekk ci sa biir toilette. Mm-hmm. moo am mooy toilette visiteur bi. Mm-hmm. pareil ku nekk mën na fa dugg. war nga teg sa butéelu eau ñoo xamante ne ni tayal nañ sax dem 16 anglaises def ci toilette pare def ci ndox mu dem. duñ ko def duñ ko def non xalaatuñ ko mu nekk lu am solo ci kër kër kër mhm, kër nit mhm. ku ñu xam mhm. barki Cheikhul Khadim dugg ci toilette am fekk fa loo xamante ne ni mënuma ko nettali parce que ci ci ci télé laay wax parce que du këram la këram këram la moom kooku dafa kooku dafa salte ah. këram dafay yàq mais léegi nii diw la nga ne du moom xoolal yow kooku dafay yàq mais koy mën a bàyyi mu nekk sa biir néeg yow yaa sa jëkkër a fa nekk ak say doom boo xëyee li nga war a njëkk a def mooy vérifier ses anglaise bi merci comme ci raxas ko bomb ko xool ba xam comme li docteur di faral di wax rek am na ñoo xam ne grande sœur dañoo gaaw a màggetal seen bopp li muy wax jeeg du gaaw a màgget ba keroog ngay nekk jeeg am na loo xam ne sa bopp yaa koy def mais munoo yow lépp rek mënoo lépp di ko def yuur mooy màgget lépp mënoo di ko def sama ma ubbi nga naxasal ma ko jeeg di ko def mais da war am loo xam yaa ko defal sa bopp mais mënoo à chaque fois di yónnee di mm-hmm. di yónnee rek na naan nga la sar ne bëggoon naa ngeen souligner ko suñuy mm-hmm. après seen jëkkër jaaxle xaw ma ci sat la bokk xaw ma ci sat sol comme li docteur wax léegi léegi. sooy yàq añ da nga war a sol yére sooy teg sax njogonal da nga war a changer yére ba sooy tëdd maquillage guddi dafa am. mais am na ñoo xamante ni li ñu toggee añ moom la naan këppat ci kaw lal ba moom la ñuy taajee moom la ñuy taajee añ moom la ñuy tëddee. li ma gën a bañ a seen dëkk dañuy ñëw yéeg rek wàcc. daal di wëngu loolu tamit ki salte la bokk. waaw salte la salte la bokk tamit. am wax ne kenn loolu bàyyeeku la. <laughs> loolu bàyyeeku la. bàyyeeku la. loolu daf da nga bàyyeeku parce que am na ñoo xamante ne si dañu salte te dañuy sëy ak seen jëkkër di def di seen jëkkër euh, tarkaal la dañuy kontaan day kontaan ci ñoom mm-hmm. dégg nga loolu bàyyeeku la mm-hmm. dafa am jéeg joo xamante ne si dañoo gaaw a bàyyeeku bu ñu sëyee benn at ñaari at dañuy bàyyeeku seen bopp am na ñoo xamante ne si bu ñu amee doom amaat doom rek ah man daa am na loo xam ne moom mënatuma ko li ma waroon a def lépp moom def naa ko su fekkee nga dee léegi boo xëyee mm-hmm. li nga li nga li nga sol suba ba ngoon loolu ngay sol mhm. rob bu jullikaay yu trois mille francs yi moom ngay sol boo xasee ba nit tëll cëpp say tànk moom ngay jël cëpp bone yu ñuul yi nag moom moom ngay jël rek ko dindi dugal def ci sa bopp dañ ko dindi booy génn defaru ba mu baax mhm. dal di génn wane wane wane ko ci biti mhm. sa biir kër wane woo fan dara loo xamante ni si rek war naa mën a téye sa jëkkër war naa mën a téye sa waay yow daal booy defaru nit ñi nga koy defarul moo defarloo ko ku tàyyal la mhm. booleeg bu sa jëkkër ñëwee nga war a tëdd ak ñoom comme yow li nga wax léegi tëdd rek mu daal di bisimilah ñu sàkk njaboot naa <laughs> ah, noonu la tudd <laughs> mooy bisimilah ñu sàkk njaboot <laughs> maa ngi lay bisimilah ñu sàkk njaboot daal couche bi bi sàkk njaboot rek lañ sàkk njaboot donc ñoom ah du pour plaisir sàkk njaboot ñoom daal bisimilah koy def yëpp ganaar ga waaw yëfi ganaar ya nga koy def. picc picc rek pare. waaw daal di daal di daal di pare féete ne ku ne ku ne wëngulu. kooku mooy bisimilah ma sàkk njaboot. sànq tamit docteur kooku mooy jigéen yoo xam ne si ñoom danoo <laughs> bàyyeeku. man dafa am jigéen ñu bàyyeeku. man nag salte laa koy jàppee. ndax soo jëlee décision ne da ngay sëyi kër ami Collé magam ji la takk wala rakam ji la takk soo demee da nga war a set ah man kat damay seey comme ni ngeen koy faral di waxee mhm. dama war a set set rek ci base dañ koy commencé mhm. mais dañuy gis benn musée bu jógee fee daal di gis bàjjen bàjjen daal def may ko wam di reetaan xeeñ parfum nga ne bàjjen su ma ko takkee mooy loolu des fois jigéen sax dafay xëy du sangu mhm. ba ci biir école yi am na ñuy sangu dañuy parfum wu yaakaar ñi xeeñ ñu neex fekk ki deen ak ñoom ñu leen di bëgg a rey parce que soo sangul ba pare a dafa dafa dafa mel ne nit ki du xam odooram c'est ah, ça dégg ñu naan kooku foog day mer loolu garaaw na de kooku foog day mer eh, koo ne da ngaa xeeñ day mer xamul xetam <laughs> xeeñ ne moom du ko xam non du ko xam kon ku gémmiñam xeeñ xamoon ne non non xam nga ne gémmiñ gu xeeñ mooy mbir moo xamante ne nii surtout loolu moo gën a dangereux ci doomu aadama njaay mm-hmm. te gémmiñ gu xeeñ manque hygiène bokk non dafa indi feebar bokk na ci am na boo xam ne feebar la ci biir lay jóge bàq la nekk mais nga dem hôpital nga def traitement wala soit nga utiliser nepp nepp waaw ah. nepp nepp c'est très important. nepp nepp nepp nepp mel ba pare gis nga dañoo moosul sax ndax yow tey jii bu ma doon wax ak yow ngunum ngunum ngunum wala ngay wax ak man. nga xaw a def nii dëgg la kay. di def nii gis nga bakkan bi boo ko gisee muy nooyi. waaw surtout loolu surtout loolu wala nga def nii sa sa bopp war ngaa xam ne kii. ami kole war ngaa xam ne kii ah, kay loolu laa bëgg. man gi nga jigéen nee nit day xeeñtu boppam surtout loolu dafa am solo loolu léeg-léeg nga ne nii def nii nga xool su amee arrière goût nga dem gaaw ah. brosse bu dem ci brosse kase ngay socc socc des fois nga def dem ne xotaan boo nee sa poxotaan da ngay sentir xet gis nga dañ naan ay nit du xenc boppam nit du sentir xetam mais am na ñoo xam dañuy sentir seen xet surtout am ñoo xam ne na dañuy dañuy ñaq farax tawul te noonu lañ lay mën a ñooxoo non doguma leen accolade gi nañ ko bëgg doguma leen seeti naa nit mu sangu ci dus bi pare ne ma xaar ma ñu génn bi mu génnee comme sanguwul xet gi kenn xamul lu muy xeeñ man dama ko ko wax mais dafay gën a tax ma gën a jënd samay parfum gën a defar waat dafa xasaw xunnu xunnu xunnu mais soo ko waxee xam nga am na ñoo ne sekkoo ko ñoom dañ naan daf ñu xeeb wala dafay jaay neex wala dara mhm. mais comme suñu émission bi ni ñuy def après su ko seetaanee dina ne ah man kat xaaral su ma gaaw daal di sangu ji jigéen da nga war a set di borosu di soccu ah, soo naanee café nga borosu soccu soo naanee meew nga borosu soccu yéeg sa si ngoom waaye na bàjj nga mënul sa instant nga jege docteur wala nga foon am i kool ma wax la benn affaire yëg nga dara uh-huh. yëg nga ni man uh-huh. ci sama ci ci ci wax ci laay yare nit ki ma nekkal mm-hmm. ci wax ci wax mm-hmm. duma ko blessé mm-hmm. man samay nit ñi ma yàlla booleel ku ma dara ci moom loo xam ne man war naa ko mën a rectifier te ma ko gaañ dinaa ko wax ba nga xam ne yow lay waxal te du la neneen laa ko waxee sa benn mag noonu lay def neneen <laughs> daal nit ki bu nga waxtaan ak moom te du mer man sama biir kër nit nekk na fa amul habitude dem toilette sotti ndox amul habitude bi nekkul ci moom sama jànk heure bu duggee ci toilette bi daf may woowu kolle ma ne ko naa mu ne ma xoolal mhm. ma ne ko garaawul sotti ndox nga def ak javel genre voilà ma sonn ci affaire bi mhm. da koo def rek ma xëy kalaate ci kër gi xale yi samay xale laay waxal xam naa ne du ñoom mhm. olof la ñoom xam nañ ni li may wax ni ñoom moomuñu ko olof lay olof lay laa doon yeddaale dan <laughs> uh-huh. li li lii dafa salte nit naka ngay demee toilette wëlbati ko bàyyi lii bu ma ko gisati lii daf may énervé. Mhm. na kenn ku nekk jël sa dayi bopp. Mhm. nit ay ci digg bi say puub danga koy fonk. dëgg la nit warul nangu nit di gis ay puubam. dëgg la arrêté leen lii ngeen di def ci biir kër gi. Mhm. zëmbale kër ga xar fa toj fa ñaar sama doom pare ñu ne ma koo xam nga ne waxoo ko ñun ma ne ko waa xam naa ne wax ma ak yéen kay. parce yaroon ci loolu. ci la kooku wëlbati ko xam ne moom dëgg te lii dañ ko war a def. dëgg la. ñàkk ko ñàkk ko bëgg bañ a def mais mm-hmm. xamu ko dafa xamul dafa yaakaaroon ne bu paree da ko fay bàyyi da ko fay bàyyi xamu ko mm-hmm. ci loolu ci la continuer ne ci biir kër ga teewul mm-hmm. heure bu demee toilette su paree def sotti ndoxam mu dem ndoxam def eau de javel ba na ñoo xam ne dañuy dugg jël firi doom yi ak couche yi te ko ci biir douche bi surtout firi doom yi merci loolu moo tax man la setu ganaar firi yi xam nga am na loo xam ne yow bu la xasee ba dal foo dem sax da nga ko fa yóbbaale moom la demal yóbbaale euh, tey jii nga dem fekk nga indisposé wala nga dem yóbbaale sa doom couche boo découché sa doom ba pare fi nga toog foofu nga koy teg. am na ñu tàyyeel dañu <laughs> koy def dugg naa ci waañ fekk si kaw taabul waañ bi ñu teg fa couche. sama ndey. fekk ma war a naan jël ver bi dugg ci kii bi. ñëw fekk ci kaw taabul bi laa la wax ñu teg fa couche. te bu fekkoonte ni si dañoo lem couche bi sax ñu mën a wax. ko lem mais dañu jël couche bi teg ko noonu léegi bi mu paree nee na. dama ko fàtte dama ko dindi teg ko noonu daane xaaral ma defar xale bi ba pare ñëw jël ko. loolu mooy yow bi nga dindee xale bi nga dindee xale bi ba pare rek doo lem couche bi bañ nañ ko ba dafa am ay taf. doo lem couche bi suturaa sax xale bi. Mhm, ndeysaan bi daal di dem sànni ko. mais teg ko foofu daan dama ko doon defar di daan bu ma ko laa yow di nga senke mhm. rama ni nga nàng mais rama fekk du loolu mhm. nit kenn ku ci ne ni nga mel foo jëm noonu nga ko yóbbaale laay dëgg la da ngay gis ko gane si nit wala ku ñëw wax nii xam xam dund nañ ko fulle waa waaw wallahi da ngay gis ko ba wi gis koo xamante ni si yow da ngay ànd ak moom mm-hmm. dem lu mel ni màggal Tuuba wala nga dem gàmm wala nga dem feneen wala nga dem xew wala dara ngeen war fa fanaan boo ñëwee jeeg jafa nekk bu xew bi amee wala cérémonie bi commencé bu ñu sañsee bu ñu génnee dangay yuuxu te fa ñu nekk di fa fanaan bu ñu xëyee kenn du ci lem benn morceau. waaw docteur foofu tamit bu ñu xëyee ñii di di di di di hmm. di euh, indisposé di jël seeni freedom bu ñu paree duñ ko dugal sax ci sachet yi. parce que dañu naan lu seen kër. sànni ko fa léegi comme groupe la rek merci. surtout màggal comme groupe la. voilà màggal ñi uh-huh. recevoir sonn nañ. jërëjëf sonn nañ comme groupe la. dañ uh-huh. naan rek. non nañ ko fa fasaane rek dañ naan ñoom duñu xam kan la. Mhm, mhm. waaw loolu wala nga jël ko tëmbal ko ci douche jàmbur. voilà loolu la ñuy wax dem bàyyi ko douche bu fat dañ koy dañ koy fat nit bàyyi ko ak douche bu fat bàyyi koo ko ak kër gu takk gis nga jigéen fu mu nekk day day liggéey. danga war a sóoraale ki war a dugg yow ñëw nga ñu bàyyil la fa ñu bàyyil la nekk ak salle de mhm. mais yow yaa nekk ca salle de bain. ba sa salle de la jàppal ni comme yow sa kër nga nekk. waaye yow boo xëyee bala ngaa def dara. Mhm. doo raxas salle de bi ba mu set. Mhm. fomp ba mu wow boo amee defar néeg bi ba mu set wecc doog a sangu boo génnee sax mën a teg sa tànk ci fu set. Mhm. mais da ngaa bàyyi noonu di xaar salle de bi yow fan ya nga fa nekk yëpp da ngay sangu rek saabu bi di takk. di takk suñuy génn sax suñuy génn léegi boo demee daan ne daan ne waaye waaye euh, kan mooy defar fii. fii kan moo koy defar kan moo koy defar ku la mooy yow da ngay jigéen da nga yërëm wala nga sangu ba pare daal di fomp dëgg la daal di fomp ba mu set man grand sa bëgguma suñu kër am xew ko suñu kër am xew parce que après am na ñoo xam ne suñu ñëwee doo mën a xam kan la li docteur wax doo ñëw di ko déñ bàjjeem la bilaay boo xamoon ay gan lañu doo fa nekk di wax parce que dañuy jël lépp daal koy saltel ñoom xam naa li ñu nekkul seen kër li sam benn mag di wax da ngeen di defar mais bu leen yàq faa dafa seet ba dañ kii dafa siis mhm. parce que chaque instant dafay balee defar déedéet déedéet jóg leen fii dafa xew su jëndal da ngay a ñëw mhm. naan bàjjen fayal kuddu bi wala defaral nii wala defaral nii docteur li mu wax sànq mu solo lool sooy dem voyage ami collègue souligné ne ko jëndal paquet mouchoir nga def sa sac doole yamul nag des fois nga àbb eh yow yoroo foofu mouchoir yoroo foofu lii mun na nekk parce que mm-hmm. yàlla dafa bind te yemalewul mm-hmm. du ma xeeb kenn mm-hmm. mais cent franc mouchoir ñàkkoo ko saabu ordinaire cent vingt cinq ñàkkoo ko serviette fëgg jaay ba dem am na mille kenn du ko abbu ñampe nag mun na ñampe kenn du ko abbu doomu al saabu ma sangu yaram yëpp bokku ñu saabu carotte saabu ordinaire cherul mais da ngay dem yooyu doo yóbbu dara ah non ma sangu pare nga serviette yaram yëpp yamuñu di sam papa yëg nga ni man su may voyage dara da ngeen di jënd tamit dara bu dama day bokk samay bagages yi may yóbbu. parce que et lan laa fay fekk. que la fekk ah. xaw ma lan laa fay fekk dama préféré man yóbbaale man fu ma mënti voyage sama dara day nekk sama biir saal. ndeysaan noppal sax foofu ma fay dal. Uh-huh. hôtel ku ne xam day am dara y' a tout. dëgg la dama préféré yóbbu dara tellement que dama ko tàmm. waaw yóbbu sama dara bu weex tàll def ko sama biir valise. Uh-huh. pour en su ma eggee fi ma jëm. su ma ko uh-huh. gisul lu ma xam ma utiliser sama poche. man euh, bu may voyagé. Mhm. sama brosse ak sama pâte dama koy fàtte sama kër. mais su ma demee ba foofu. nga lalaat ko man man je man je préfère su ma demee ba dem këram ma war fa fanaan ma fàtte sama ñampe man maa ko def exprès ma dem ba boutique bi ma jënd day bees. ma def ko que du ma a jël saabu bi tooy ma koy sangoo di ko defaat si saag bi na yàq su ma egg su ñibbisi su ko fàttee alxayri su ma ko indee su ma ñëwee teg ko ci kër continuer ko bàyyi ko pour gan yi ak yooyu mm-hmm. mais du ma dem naan docteur doo ma sa ñàmpe wala doo ma aar lii am na loo xam ne kenn du ko am même nit su la rusee mais docteur bu la rusul bu la même bu ne la am na loo xam ne c'est privé kenn ko àbbu am na loo xam ne dafa yomb kenn du ko àbbu am boo ko nangoo boo ko boo ko naree bokk diwool sàbba non loolu ci ay la jëla sàbba diwoo waaw eh. <laughs> diwoo <laughs> daal bari na trop trop forox nañ xasaw nañ ñii dañuy dugg ci dugg si génn da ngay ànd ak ñoom li kii di wax man duma la ko ñun ñun nag dama lay bàyyi ci biir rek peut-être un jour di kenn mu wax la ko non non ma dama la ko junju ba pare nit dañ koy defar xanaa xamoo ñu nekk dañuy defarante mm. waaw man tey dara mën na nekk ci man nit remarqué ko ci man defar ma te duma ko yëg mm-hmm. ku defaru dañ laa defar mm-hmm. dëgg nee naa léeg-léeg nga xam lu baax loo xam ne ci nit nga koy jàngee mm-hmm. bien vrai que suñuy waajur am na lu luñ léeg-léeg ci ci milieu fréquentation nga jàng fa loo xamante ni xamoo ko woon. dëgg la dëgg la. boole boole it euh, ba euh, bàyyi it ko jomtu bis nga ab jeeg. ko jomtu doo génn bu la ndaama raas rombee nga jën. jëndantu gerte kemb gi jën. <laughs> biscuit bu la rombee nga jën. maanaam boo xam nga yooyu yëpp di ko lekk yoro brosse. yoro socc surtout day gaaw a takk yoro socc nenu baxal léeg nga woote kaa jaay ma. baxal ba ndeke baxal nañ ko ñaari fan. bu bon nga jël. lekk boo ñëwee fii lekk fi ceebu tiir boo demee fikki bàyyi say bëñ say bëñ ne ñàkk ñàkkaaral ba bu bu tay jii ku jëloon ku jëloon kudd boo bu xoosee day fees deel waa léegi nag naka ngay mën a loolu lépp nga boole ko ci sa gémmiñ mu yendu ci suba ba ngoon nga nelaw bëccëg yeew fanaanaat ci naka ngay ànde xet bu neex gémmiñ merci beaucoup nan ngay ànde xet bu neex te gémmiñ mi ngi la ko important gis nga danga koy brosse danga koy socc làmmiñ dañ koy boros. important bi na ci gémmiñ. Mhm. newul ci leen mhm. non xanaa xamoo flirté moo gën a salte ci loo gis ci àdduna. dëgg la dëgg la te mënu nekk sa jëkkër di flirté ak moom sa gémmañ xeeñ wala gémmañam xeeñ dëgg la déranger dama la koy wax mu ne nii sa jëkkër ne ko yundu gémmañam xeeñ ne ko jugal dama la koy wax complexe tooy bébé jugal mu jóg nga ne ko waa doo jug na dama boros ji nag <laughs> jugal da nga koy wax wax bu neex daa nit di nga ko wax data doo ko gaañ xam nga li bon mooy jàkkaarloo nit gémmiñam xeeñ ngeen war a flirter en tant jëkkër a jabar nga ne yund rek mu xeeñ nga ne ko hmm, xeeñ nga de dëgg day vexé nit waaw mais am na noo ko koy expliquer day xam ne yow mii kat li ngay wax nii effectivement dëgg la may gaañoo ko damay damay jël patak brosse du jóg dama ne na kii nii na na kii lan na boros. da nga jël pat ak boros. <laughs> dama koy dog dama koy dog. <laughs> Eh. da nga jël pat ak boros da jël pat ak boros. da koy boros. ñëw daan la yow nga ne ko daa waaye itam da nga sangu nii ba pare. Eh, ah, maa du mel sangoo pare tegal naa la foofu sa sa pat ak sa boros dama la koo yóbbul yëpp benn yoon rek pour nga kii. doo ko fekk doo ko gañ xam nga. jigéen dafa am noo xamante ne si noonu lay kiiwee borom këram même jëkkëram sax waaye yow bàyyi ma ma rek sa day defar jabar mm-hmm. déglu ma rek na ma ji déglu déglu leen ko xool leen dafa am jigéen noo xamante ni si noonu lay kiiwee ak jëkkëram mm-hmm. bu fekkente ni si xam na ni jëkkëram dafa am odeur mm-hmm. gémmiñ gi day génne odeur yu sew yooyu ba doo leen mën a flirter ndax nag flirter nag dafa fekk nag tarkaal sensible de xam nga doo mënoo dëkk ci ci lok tàngal mënoo dëkk ci lok pasti mënul nekk bu ma la bu fekkente ni si aw ma chasse dinaa la rottal ndox ñëw kii la ni la xolal te nga naa la fa sa patak sa brosse ak sa lépp serviette bu weex tal système la dama bëgg nga bomburu kuy bomburukaat yi def ba mu baax def sa brosse def sa xolal tey nag moom dara du yomb mhm. gis nga tey dinaa la defal loo xamante ne si mosoo ko gis mhm. lem laa préparé def ci sama malt mhm. sama cristal malt fas yéene ko sotti ci kaw di ko mare ci suuf ci kaw laa koy sotti muy rogalaat ni nga ma koy mare ci <laughs> suuf kon nag ki nga xamante ni si foofu laa koy mare bëgguma dara lu ma takk rasoir baa ngi noonu watal watal mu daal di wat <laughs> yéen a ngi yàq bàjjen de mu daal wat xola épilé ko na set wecc savon baa ngi noonu savon bu neex parti yi nga xamante ne si sama làmmiñ dafa war a jaar lépp naan nii di aca docteur mun naa ma ne ko xoolal uh-huh. na set wecc yii nag moom kenn waxaalew lépp uh-huh. daala nga foofu ma tegal jënd sa parfum sa sa kii bu baax tegal ko ko doful jënd jàpp bu demee fi ne day wattu ba ba set wecc bay xij xij yi mooy raw kii boo ko diggee boo ko diggee boo ko diggee lu baax na ko xoola tey moom <laughs> lu neex la bu ko tey moom dara du yomb dara tey du yomb bu subaa xoola mooy sanguwaat ba set ñëw naan la waaye xanaa bu dem ba moom du am tey nga ne ko yaa ko teree dama sangu jiwaat na set rek <laughs> <laughs> bu ko defee rek ba day set wecc jéeg gi daa xoolal ku ci bëgg a napp sa waay <laughs> koo kii fii na ko jaare la foofu dëgg la ku ci am xetu poqataan wala xetu gémmi mun nga bañ a mun nga bañ a jënd lépp ba mu des loolu loolu yomb na kooku ñaan dala koy may jëlal benn mille francs rek dépensé ko avant ñuy tàggatoo ba ki démb dama def grande sœur statut am ku dugg daal ne ma da nga xam kii ma ne ko maa ngi ko xamee Sénégal set mais mu nekk xale daan naa ko seetaan macha allah. Mhm. mu nekk ko mën joué franchement sama bi nekk pare ne ma waaw waaw léegi réseau na la yaa ngi mu ne ko waa. <laughs> macha allah mu ne ma ku set kaar. dëgg la musul sol lu salté en plus

brosse ba mu fort keroog may def direct benn élève dugg daal ne bàjjen li sa laay ak a bëggoon a ko ba tey parce que bëgguma toog ak Ami Collé di wax sama odeur parce que des fois am élèves yoo xam ne da dend ak ñoom mais dañuy xeeñ tellement mm-hmm. damay dem man su may wax professeur damay dem ba ci professeur bi ma sëgg parce que du ma ragal sëgg ah, ci professeur bi ah, koy raxas waxtu ah. eh, di ko màpp ba mu wow waaw soo sawee li ami ko la wax soo sawee nga jël <laughs> mouchoir jigéen sexe da nga koy raxas soo amee jëkkër mu daal lay ñemee sama jabar sexe am moo fi gën a set su ñëwee yëkkati loolu sama jabar sexe am dafa set la voilà fu ma neex lay jaar comme le docteur wax sànq ma cristal dëggu neex bàyyi ñu baale nga <laughs> ma cristal daal di daal di di foofa daal di toj bàyyi mu <laughs> mu mel ne da ngaa yor ko rikko di ko rikko rek dafa am ñu salte waaye jëm leen a set xasuñu leen mais ngeen jéem a set daal am na ci solo lool docteur tàggatoo wala. waaw macha allah waxtaan wi neex na am na solo xasuñu kenn dañuy waxtaan rek. bëgg jeeg yëpp gis ci seen bopp bëgg góor ñi gis ci seen bopp ndax nag set nag macha allah moo ñu fi tax a toog. Uhuh. mu looloo waral ñu ñëw Sénégal set. xam nga set la ñu wax ah set la <laughs> waaw xam nga boo jógee set TV bi ñëw Sénégal set tubaar fa kàlla macha allah jàkkaarloog jeeg jàkkaarlook góor ñi di waxtaan ak ñoom ci set bëgg rek ñëpp set waxtaan ak yéen xasuñu kenn xasuñu mhm. kenn xasuñu kenn bu fekkee kenn gis na ci boppam it mhm. ñoo ngi jéggalu bu baax a baax mhm. bu fekkente ni si ka nga xamante ni si dafa salte woon te toog di ñu seetaan na jéem a set xam ne kii dañ koy raxas moom aana. dañ koy raxas dañ koy raxas. Ablaye Ndiaye dañ koy raxas. gémmiñ pokotaani karaw yi dee leen ko wat. Mhm. ba mu set wecc tey soccu. tubaar fakkaar la macha allah di boros di boros làmmiñ. bu ñuy am si bu ñu yam ci boros kasata grande sœur mu nekk comme daal rek euh. nañ lu ñu neex. <laughs> waaw waaw mais noonu la. ñu ngi jéggalu ñëpp nag. Ah. vraiment di baalu ñëpp képp képp ku ci gis sa bopp rek. ñu ngi lay jéggal di la baalo dañuy waxtaan rek juste pour defar. dëgg la waxuñu ngir kenn mer. Mhm. waxuñu aussi ngir dut kenn baaraam. Mhm. mais àdduna moo toll foo xamante ne ñun mhm. yàlla dimbali. ñuy toog devant les caméras ñun ñoo war a wax ak askan bi mhm. amaana sax peut-être mel nañu noonu wala meluñu yàlla rek a xam mhm. mais daal c'était juste rek pour ngeen gën a defaraat toogaay yi mhm. jigéen ñi gën a mën a toppatoowaat seen jëkkër yi góor yi tamit di bàyyi xel ci seen bopp parce que góor it dafa war a bàyyi xel ci boppam parce que nee naa hygiène nit waru ko def ngir nit da def ngir sa bopp yow ba pare soo ko transmettre nag yeneen doomu aadama yi mm-hmm. di kontaan bu baax a baax a baax ci waxtaanu tey bi am na solo trop te am naa yaakaar ne mm-hmm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu bari dinañ fi jógee defaru ba faaw ci kàttanu yàlla parce que nag dañuy wax rek mm-hmm. dañuy dañuy wax rek dañuy wax juste pour de wax euh, may féliciter vraiment sama xarit boobu madame si alias Naar di ko souhaiter heureux ménage waxoon naa ko wax depuis ménage di ko ñaanal yàlla mi dara tëwul sëyam bi nga xam ne moom la ko suñu borom dugal yal na nekk mujjantalu sëyam ci àdduna te yàlla may ko ci njaboot gu barkeel te yàlla jubale ko borom këram boobu ñu saxarloo ni asamaan ak suuf wax dëgg yàlla macha allah gambien dañoo wàcc Sénégal rek di takk suñu stay rek di yóbbu noonu la naar ñi ngi lay ñëpp gambi nañ ménage naar waaw waaw waaw <laughs> di may dédicace sama rakk joo xamante ne ni Caba euh, Gueye chéri El Hadj euh, sama rakk yëpp maa ngi leen di nuyu waaye caba tamit nuyu naa ko baax a baax li tout le monde bàyyuma kenn mm-hmm. nuyu naa ñëpp nu ma njaay madame Diaw maa ngi koy nuyu di ko ziar xam naa ni ba beneen yoon incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam merci beaucoup grande sœur nii lay demee saa su nekk fi lay xewee ci Sénégal 7 nee naa bu leen fàttee abonné waaye di leen rek su ngeen bëggee dégg lu baax docteur mi ngi fi tey macha allah yaakaar naa toj nga plateau bi mm-hmm. waaye kenn du grande sœur man mi amagul jëkkër sax nee naa su ma amee jëkkër nee naa rajaxe dëkk bi kenn waxatu ko <laughs> may sant bu baax a baax borom kin production muy seeti ko keroog mu daal ma yëkkati yére bi daal ma koy jox baax loolu bi ñu xamante ak léegi yàggul Fadel caméraman moo ma boole ak moom maam jaara mu baax loolu ñàkk ki ñaan xam teraanga bëgg ma di waxtaan ak man di ma conseiller def ma comme ku mu bokkal ndey ak bàyyi muy dawal benn film boo xamante ne ni ñëwagul bu fas yéenee am doole loolu incha allah rabbi muy laara ñëpp a ngi ci docteur a ngi ci ñëpp ngi ci mm-hmm. surprise lay doon yàlla ko yàlla defal jàmm mu dem fi film yu mag yi toll yàlla na fa toll ci barke Serigne Saliou moom nga xamante ne ni moom la yaakaar mel ni sant bu baax a baax sama mag yi sama yaay di sant waa régie papa maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant yal na la yàlla may soxna su baax yaag Abdou ci barke Seydouna Mouhamad mm. sonal naa leen fàtt naa leen xam nga su ma ñëwee lu ma neex laay def kenn du yéen ci man kon à la prochaine fois merci beaucoup l'émission tire à sa fin www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube